moo tax su jamono doxee ba ñu rax nu dañ nu rax bokk yi ab sëy bu jëkkoon bokk yi ko góor ki da cay bokk ci góor ak jigéen bokk ku jigéen ka bokk ca ci góor ak jigéen ñu naan la kii mooy sa boroom kër bu jigéen ñu di ko wax njëkke njëkke nga xam ne mooy bokki ku góor ki ci wàllu jigéen mu di leen sédd ay cër lépp di rafet bu dee ki nga xam ne daa ñëw fekkee siit daldi mel ne ku nekk ak ndeyam ak baayam gorom bi mu jàppe ko ni baayam bu jigéen bi mu jàppe ko ni ndeyam ay seeni doom mu jàppe leen ni ay magam walla ay rakkam dañ ko daan tànn ay nawle ak ak i melokaan benn jafe-jafe amutoon kër yépp ci jàmm bari na sax ku ñëw ci ak céet tey jigéen ne fi ba ngeen gi ruus mu dem kenn ku jóge ci kër gi dem toppiwaat ko jël ko jëli ko indiwaat ko ci kër gi am na ba tey boobu nag bokk yi raxagun nu waaye biñ nu raxee mooy kii lay génnal léegi da na tase donc jàpp ci loxoom mu yoloomal ku ngeen ànd yi dem fu leen soob ba mu yàgg ba ñuy bëgg a sàppente kenn ñoom gis intérêt ci moroomam ne dama bëgg ñu may ma am na ñi ñuy may ñoo xam ne kenn ñëwalu leen dañuy dem ci ñooñu dëkkal rek seet fa ay mag yu ñeme yàlla yoo xam ne ñu mutuñ kilifa ci ki ñuy maye wala ki ñuy may ñu doxi ko ñu may leen mu jeex loolu nag mooy ñaar ñoo xam ne dañoo tëj seen i bokk loo ca fekk nag bay ba nga bàyyi ko ca dañ daan wax dama bëgg ñu ne demal ci diw wala demal ci diw wala demal ci diw waaye léegi ñoo daan dañ daan génn tuŋ doomi ko mu mu ne ki fi masoon a nekk lii wala laa kepp xamuñ fu mu jóge bi muy ñëw bi mu fi jógee itam dem liggéey feneen xamuñu fi muy liggéey foofu ak lu mu fi wut rax bi mooy madame diw madame diw moom ci diw doom lay yem du ko romb seenum néeg lu ca mën a am dañ faa nar a rayante waaye boolewuñ ca kenn te alxuraan li ma jëkk a wax nii léegi ne ab sëy ñu bari da caa bokk da ci daa bokk ci bokk yi jàngale na koy defee nu muy demee nee na yéen ñii bu fekkee seen bokk ñoo dox sëy bi ba mu am saa su ngeen demee ba gisu lu ngeen xam nekk ku ne dem ci kilifa ga ko maye woon kii dem ci ka ko mayoon ñu daje waxtaan bu ñaari njaboot ya dajee ba waxtaan woo leen ci seen diggante yéen ñaar ngeen séq wa in xiftum shiqaaqa baynihima fabaasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaahan yuwaffiqi llahu baynahuma su ngeen demee yéen ñaar ñii nga xam ne kii dañ koo tànn ci diine ku góor ki ki ñu ku ci jigéen ci diine ku ci gis lu mu xamul na dem ca ka ko mayewoon bu dee jigéen kii dem ca ka ko mayewoon bu dee góor ñaari njaboot ya daje defaree diggante bi waaye bokk yi léegi dañ naan euh, dëkkuwaay boo xam ne ñu teg soxnaam képp ñoo fay dëkk dañ koy tabaxaale ci tabax yu yees yi ñu teg soxnaam képp suñ ko mayee ba ngoon jot mu ànd ak moom dem limaale wuñ ci sax bis bu njaboot amee fu mu fay dugg li ma leen ko ci de ñoom ñaar dong moo tax lu mën a xew ci ñoom ñaar bay boo ñu wéete ko ndax boolewuñ ca kenn benn amu ci kenn koo xam ne tànn nañ ko tànnin wala islaam waxoon nañ ko ko tànn ndax bu ñu ko tànn seen xel léeg-léeg dem ci alquran ak bu ëllëgee lii ak laa waaye ginnaaw dañoo daje donc ku nekk te ay bokkam loo ca fekk nag bay boo nga jël euh, rax boobu nag feneen lañ ko jële foofee ñu ko jële dem nañ ba xam ne juum nañ ko seen nos ba ndax nit mënut a doon ñaar dong ci àdduna amatoo ndey amatoo baay amatoo bàjjan amatoo nijaay amatoo kenn yàgg diw dong saa bu diw meree mën na laa rey ci biirum néeg te bu ko reyee it day ba mu xam ne lam lam lam lam ñor la rek la moom lay góob waaye waa ji it su ko koo ko rayee itam na jàpp ci yàlla xam ne loolu la moo ko góoboon ndax ndax ci ñun yëg-yëg bi ñu am ci ak bokk ñeneen amuñu ko nit dana la def loo xam ne lu metti la lu jar jóg nga xam kam doon nga ne ah ruus naa ko jomb naa ko ndax diw yëg-yëg boobu yëg-yëg boobu bokk yi amatut fu bari ci àdduna bi ñun rek ñoo ko dese waaye ku ko ci xotti it gis ko koo xam ne danaa la dangay tàggoog sa ndey walla sëy bi du am nga nangu dangay bàyyi sa baay walla sëy bi du am nga nangu wala moom mii di jigéen mu topp waa ji ne may leen ma ñu ne ko duñ la may ndaw sax fàq ànd ak moom luñ ca fekk nañ ko ci nañ ko gar nag ñoo ko góob ñoo ko bayoon ñoo koy góob ñoo koy gar loolu nag indi na itam ba tey njaboot gu te saaroo ndax kenn ku nekk su tàggoo ak kam yoroon wutaat keneen kooku wutaat keneen njaboot ga amoon fee ku leen di yor kenn moo leen di yor xanaa dañ leen ci bàyyi ci loxo yàlla mi nga xam ne dina ci loxoom du saaw waaye lim gën a jur mooy lambute onusa lamb am na ñooñ bi ñu xasee ba dégg ne diw diw ko yoroon noppi nañ ca lamb na ndax xam nañu diw nam mën a muñe wala diw na mu tànke day dal ñaar ñëpp nam mën a muñe nam tànke mën naa dal ku nekk góor mën naa tànk jigéen mën naa tànk jigéen mën naa mën a muñ góor mën naa mën a muñ waaye waaye lambute gu bare gi loolu ca am na fi ñoom sax dañoo nanguwut sax far amati kenn ñi naan góor ñi naan duutu am sox duutu am soxna jigéen ñi naan duutu am borom kër musiba tàmbali nag ci lu ñuy wéy yàlla rekk ko xam yàlla noonu ci yàlla musal moo tax faw jullit yi delluwaat ci njàngam yonent bi njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jëlee ci alquran kuy denc na denc ab nawleem tànn ko gën koo tànn ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñu tànn ko na lim na ñeent waaye ka ko ca gën a amal solo koo xam ne ëllëg si biir mooy amu jiwu waat mooy ku am diine ku am diine diine lislaam ragal yàlla su taseeg boroom kër boo xam ne boroom diine lañ ko tànn moom tam te ragal yàlla su boobaa jàmm rek kay am su tàggoo mënut a ñàkk jàppante du sa mën a am jàppante téere baat du am ak toppante ci àttewukaay yi waaye <clears throat> la ca ma di ko jeexale mooy am na ci réew mi ñooñ dañuy laaj waajur muy liggéeyee ñu wax ba mu doy leen ñu saga nangu bu jëkkoon daa laaj ba xam kii bëgg si doomi liw ji fu muy dem ñu ne xanaa Abidjan bu yàggoon ñu ne kooku de am na jom fu muy dem Afrique centrale Gabon ñu ne am na jom ba mu yàgg feneen ubbi fu muy dem ñu ne barab sàngam ba mu yàgg ñu naan ndax am na këyitam déet di mën a dem ak a dikk loolu du nattukaay loolu du ay nattukaay yu lislaam jàngale nañuy fexe ba jaamu yàlla gu ñu mën a def ñu xam fa ko lislaam teg teglu fañ fa teglu suñuy tànk te bañ a xool lañu si gën a ñor wala fa ci suñu intérêt nekk kese mooy jur yu bari yi ngay dégg dem na ba yàgg mënatu ko muñ rey na boppam moo xam muy góor wala jigéen dem na ba yàgg mu sàkkal sàkkal na pexe ay doomam loolu nag bokk yi dañ ñoo rax ña nga xam ne amuñu mag amuñu rakk amuñu nijaay amuñu bàjjan amuñu bàyyi tax fa ñoom lañ ko doon dégg waaye ku jaase